alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin bokki taalibe yi ci pàkk bu sell kërug leer kërug alxuraan kërug jaamukatub yàlla noo ngi fii ci kër Sëriñ Buso noo ngi toog ak xalifaam bii sëriñ Omar Bousso ak njaboot gi yépp mu fekkoo ki rakkam ak i doomam ak i jarbaatam aki i taalibe xam ngeen ni tubaar kàlla sëriñ Gédé Bousso ngi nii xam ngeen ni sëñ Modou Mamoun Bousso imam mi ngi ni dend ak moom sëñ Abdourahman mi ngi nii toog ak njaboot gi ak bokk yi sëñ Omar nag jël na ndigal ci ki nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha te sopp ko lool lan lay woote màggal yëpp dëgg la de yëpp jaadu na waaye gii nag mooy gi jar taalibe bi yëpp génn Serigne Touba ni mu mel ci Rasulillah ak ni mu bëggee yonent bi waxtaan ak sëñ Mbàkke Buso nu ko dama cay dem dañuy ànd ah sëñ Mbàkke Buso dem nag ajali Serigne Touba googu ajay dëgg. moo tax ñibbiseem gi nag moo tax ñëpp war koo màggal segam dañuy nganale màkk sëñ Mbàkke bu sa képp la ñu war a nganale moom mi ajali sëriñ Tuubaa génn leen ñu le trois nu ganale bu so ci ngan gi demoon defale ko sëriñ Bamba te ñibbisi boobuy bis moo tax sëñ bi toog nii xam ngeen ne nag bu ñu toogee fii ci gédee sëñ Abo Cheikh Ahmad Fadal Mbàkke ah borom kër gaa ngoog de waaye sëñ Cheikh Mbàkke Cheikh Abdou Khadir borom kër gaa ngoog de waa ak njabootu sëñ Bamba gi yëpp sëñ Omar mii toog bawul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ak sëñ Abo Mbakke mii fi nekkal sëriñ gaawaat te fii ah kooku nag mooy soxna soxna May mooy waajuram soxna May nag moo jege sëñ Mbakke Bousso. ginnaaw bi loolu ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Omar Bousso mii xalifam sëñ Mbakke Bousso mu ngi leen fàttali. xam naa noonu lañ ko mën a tudde sax waaye doon lu gën fàtte ndax diggante sëñ Tuubaa ak sëñ Mbàkke Buso ah ajuma ko gaaw la ni ko sëñ Abdoulaye di waxe boo tuddee kii tudd nga ki des léegi nag bisam boob yi nga xam ne moom la liggéeyal woon sëñ Tuubaa ndax naal yi mu fi bàyyi woon dañu ràññ ca yett yoo xam ne yi ah, sëñ mbakk bu su tudd na ko ba ci jiitu mooy mu demal boppam Màkka moom demee ba xool ba gis ni ni mu demee ci fi mu nekk ak niñ ko fi nekk looye nga xam jóg jëm ca dëkk bee dikk rek day doon loo xam ne lii day ànd ak coow ak jafe-jafe mu xam ne jóg di dem Màkka jërut waxtaane mbaa nga di ko waaye naal woowee nag bokk na ci naal yi nga xam ne moom la fi bàyyi woon ngir ñu defal ko ko mu àndal kook sëñ gaawaan ak sëñ Fallou Mbakke ak ñi ñu àndaloon ba defal ko ko ba mu mel noo xam ne nii bu amee aj gu ñuy wax historique aj googa la aj googa nag ah, sëñ Mbakke ba mu ñibbisee jógee màkk ci bis bis ba mu ñëwee te moom lislaam rekk lay dund mu tànnal ko bis bi nga xam ne ci lay ci bégale di ko ci sant yàlla yàlla ko ci sant la sëñ Tuubaa waaw kon nag sëñ war naa ni ko yëgal mbokk yëpp Mbàkke Mbusoobe ah ñëpp rek ku ku ku ku doon ci yoon ab ku ci am cër boo xam ne bii Sëñ Tuubaa la ko jox ñu ngi la yëgal bis boobu bëgg nga ñëw teew ci ndax Sëñ Mbàkke suñ Sëñ Mbàkke Buso ñëpp ndax Sëñ Tuubaa ko teg fi ko teg def ko li mu ko def doon loo ko li mu doon kon nag ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn sëriñ bi nee na woote bi mu ngi koy tàmbalee ci waa ko Seexul Xadim ñii bopp bi ak képp kuñ bokkal maam Mor Anta Sali ak képp kuñ bokkal maam Maaram danañ ci dellusiwaat sax ba gën ba mu gën a yaatu waaye woote bi daal la mu noonu ak fàttali la ak soññ la xéewal la barke la waaw ku ci bëgg xéewul wala nga bëgg am ca barke boobu fa suñ barke bi su jëlee woon waaw ah, ñu ngi lay ñu ngi sàkk ci yow nga ñëw fii ànd ak ñun bis bi. di woote ci bis bu mag bi nga xam ci lañ jublu. te mooy bis bi nga xam ne nii ci la sëriñ Mbacke Bousso demoon Makka joxe ji juróomeelu ponk ci lislaam waaye li waale itam yéen a joxam sëriñ Touba amoon na ko ci siyaara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba jëloon matukaay yëpp waaye ay gàllankoor amoon ba taxoon demutoon yéen a jooju li sëriñ Mbacke Bousso mottali ci woon àndoon koog ñam ko àndaloon monsieur Mamadou Fadir ak maam Cheikh Anta borom gaawoon ak seen njaboot bis bañ dellu seen ak jóge Makka nag di bis bu am histoire ci yoonu Mouride. ndax ku nekk xam na ne sëñ Tuubaa yéen ni bëgg woon it wax alayhi salaam ba waxoon ne ne sama yaram gàllankoor waaye sama mu ngi koy gis di ko jëneer di ko nemmiku loola ku mot li jéene jooju bis bu mag la ci yoonu murit bis bu ñu mat a fàttaliku di wéral itam lu bari ci l'histoire ndax ñu bari bari dañu bind ne yoonu murit fonki wuñu aj noonu ba texoon sa wax sax ñu wax am na diir boo xam ne nii benn murit ajiwut loolu nag dem ak suñ mbàkk bis ci màgg googu daf koy daf koy dindi teg fa li nga xam ne ni moo wér ci histoire lañuy ñuy njaboot suñ Mbàkke Buso daje di ko fàttaliku di ko ci ñaanal waaye itam di ci jàngataat ay melokaanam ak jikko yu nga xam mi ngi woon ci moom te réew mi mën koo jariñoo te soxla woo ko jamono juñ toll lool bis boobu nag mi ngi dëppoog alxamis ji di alxamis ñetti fan ci weeru ut dëppoog fukki fan ak juróom benn ci weeru tam xarit moom lañ ko fàttaliku fii ci Guédé sëriñ bi nag ne mi ngi koy yëgal mbooleem képp koo xam ne daal séq naa yow lislaam bi mi ngi la koy yëgal waaye képp koo xam ne séq naa yow lislaam mi ngi la koy yëgal ndax sëñ Mbàkke Buso nitu diina yëpp loon waaye itam nitu Sénégal gépp loon ba muy wax yéen Sénégal yi boobu Sénégal sax nekkagul état bu indépendant kon nag kooku buñ koy fàttaliku Sénégal gépp ñoom lañ koy yëgal ñëpp bàyyi ko xel te it nekkoon koo xam ne ko amoon wàcc ci sëriñ bi ndax ba sëñ bi wax na illaa man maa la qalbi luqyaaw xabi xalili anisi man radina sajaayaw loolu la sëñ bi waxoon ci moom dane maa ngi jëmee sama xalima ci nga xam ne nii sama xol day jéng jëm ci dajeeg moom waaye mooy sama xarit dem sama wéttal mooy nga xam ay jikkoom yëpp itam neex na ma kooku nag mooy Serigne Mbacké Bousso moom la ñuy wooteel bis bii di ñetti fan ci weeru août dëpp ko fukki fan ak juróom-benn ci weeru Tamxarit sëñ bi nag ne mi ngi ciy woo ñëpp waaye ñi nga xam ne ni nag Serigne Mbacké Bousso mooy seen bunt ci Serigne Touba sëñ bi ne leen di jox ndigal lu ci waay jàppoon na ko bàyyi te xam ne bis bi njabootu Serigne Mbacké amul bis bu ñu leen gën a ci bis bi kon nag képp koo xam ne nii Serigne Mbacké mooy sa bunt ci Serigne Touba sëñ bi neen lépp loo jàppoon na nga ko bàyyi te képp koo am nga gàllankoor te mënoo ñëw itam fa nga nekk na nga ko fa ba ñëpp xam ne bis Serigne Mbacké Bousso ci lañ toll kon loolu mooy ndigal moom suñu jox ñi nga xam ñoo ne ci gannaawam ñu di ko waajal mu nekk ñetti fan ci weeru ut dëpp ko fan a juróom benn ci weeru tam xarit sëñ nag nañ ko baaxoo defee rek mi ngi koy fàttali mbooleem ñi nga xam ne nii jàngkati alxuraan lañ raabitatul madaarisul xuraan yi ñu ngi leen koy fàttali taxawaay bi ñu ci daan am démb ak bërki gën koo feddali gën cee taxaw waaye tam di ko fàttali mboolem jàngkati xasiida yi ak mboolem zikarkat yi ñëpp de képp koo xam ne daal yaa ngi yëkkati baatu laa ilaaha illallah sëñ bi nee na mooy lépp loo mën ci ñaan ak ak yu mel noonu nga def ko te delloo yool bi suñ bu Buso ngir suñ borom yokk ay leeram fa mu nekk te taas ñu ci barkeem te jafe-jafe réew mi toll nag fan yi incha allah ñu bëgg bu jógee ci màggal gi ci barke bis boobee nag jafe-jafe jeex ci bis boobu kon daal bis baa ngi noonu ñetti fan la ci weeru ut da bëgg fi fan ak juróom benn ci weeru tam xarit fii ci Guédé Bousso sëñ bi nee na mi ngi séntu ñëpp nag jaan ñëpp ak si jàmm salaam ñu màggal ko ci jàmm salaam waaye dellu ci jàmm ak salaam bis boobu mooy bi sëñ Safal wax léegi rek mooy ñibbi si rek alaaji Mbàkke Buso mu jeg Baytul Haram te bis bu màgg bis boobu nag bi mu ko fonkee teg ko fi mu ko teg mu di ko woo mu di ko woote di ci woo nag mboolem bokk yëpp yëpp yëpp bàyyiwul kenn mboolem ñi mbokkal ma bu sa Awa Mbaye mi nga xam ne <coughs> mooy waajuru sëriñ Bousso bi kon sëriñ Bousso bi ak njabootam gépp dugg nañ ci biir sëriñ Saa Bousso ak njabootam gépp dugg nañ ci biir soxna Jaaratullaahi ak njabootam dugg nañ ci biir soxna Mati Bousso ak ñoom ñëpp dugg nañ ci biir njaboot googu la kon ku ca bokk rek lu ci waay bokkee rek kon sëñ bi mi ngi lay woo ci bis boobu la bawut kenn bawut fenn bawut ñenn ci ñi nga xam ne bi ñoo askanoo ci maam yi bi tedd yooyu la kon mboolem bokki Mbuso bi mboolem mbokki Aafe mboolem bokki Mbàkke bokk yëpp sëñ bi ne mi woo ci bis bi di ci woo di leen ci teer séntu te xam ne moom ñoom ñoo ko bokk képp ñoo ci bokk yem ndax sëriñ Mbàkke ba muy dem sëriñ Tuubaa la demaloon sëriñ Tuubaa nag ku ko demal ñëpp ko demal murid yëpp nga demal bokk yëpp nga demal kon boo ñibbisee ñëpp nga ñibbisil kon mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn di sant sant mboolem mbokk yi nag ci te yitte yi nga xam ne lépp lu mu sa am mbokk yi ñoo ko ànd di ko dox ba tey ñu ngi ñaanaat loola ñu feddli ko gën koo takku gën a ànd a ànd nekk benn te xam ne mbokk yi genn gee maam yi yenn yee yitte ci jenn jee sëñ bi benn bee kon nag mu ngi woo ñëpp di séntu ñëpp. mu ngi woo mboolem mbokk yi. ak xarit yi ak wëllëre yi ak soppe yi ndax sëriñ Mbàkke ku bari ay soppe la woon ku bari ay xarit la woon ku bari ay wëllëre la woon kon bàyyiwul kenn rek. ci soññee woote bis bi nga xam ne amul dara lu moom muy bisub alxaaji Mbàkke Buso sëriñ bi nag ginnaaw bi nga xamante bi yëgal na ko njaboot gi ak bokk yëpp ni ko sëriñ wax rek muy jox mbooleem njaboot gi nga xamante bi ni ñoo jabootoo ci njaboot sëriñ Mbàkke Buso gi ñu tuddee kër yi nga xam ne ay seex lañu ak mbooleem taalibe yi muy woo nag njabootuk sëriñ Ngóoda Kan ci sëriñ Abo Kan nekk ci bopp ba waaye njabootuk sëriñ Mbay Sekk ci sëriñ Mbay Sekk misra nekk ci bopp ba njabootuk sëriñ Galaay Saar ci sëriñ Mbàkke Saar nekk ci bopp ba muy woo njabootuk sëriñ Daam Lëy ci sëriñ Mamoor Lëy ak waa Pir gépp sëriñ Modou Fall Farang sëriñ Sidi Fall nekk ci bopp ba ak waa Bool gépp muy woo njabootuk euh, sëriñ Demba Kanji ci sëriñ Cheikh Kañ sëriñ Cheikh Ngañ Kanji nekk ci bopp ba ak njabootuk waa Caaween ak waa Ndémen gépp bayun kenn muy woo waa Kër Malamine Xabbaan ak waa kër ma Lamine Bawol gépp di woo njabootu sëriñ Modou Fall seen ci sëriñ Baaxeer Fall nekk ci bopp ba njabootu waa Kuul euh, di woo itam njabootu waa kër sëriñ maam Balla Bousso Bawal ci sëriñ maam si euh, sëriñ Bousso koñ na ci bopp ba di woo waa Mbayeen ak waa Kuumoon di woo itam waa kër euh, Alhaji Piti Joxaane di waa kër waa Sal ak mbokki alpulaar yëpp di woo waa Mana. ñëpp ji njiitul euh, Modou Diarra ne itam mu ngi woote mbooleem dëkkandoo yi nga xam ne moom la dëkkandool muy waa Belal Nay ak waa euh, mbokki Casamance yi ne bàyyiwu leen muy daayira yi nga xamante bi ñoo nekk ci bitim réew ba lu mel waa Casamance waa itali ak waa Amérique ak ak waa Guinée Bissau ak mboolem daayira yi nga xamante bi at mu nekk waxtu nekk ñoo ko daan ànd ak euh, sëriñ bi ci bis bii muy lu mel daayira retu jaare bétul maraaxib ak mbooleem daayira yi nga xamante bi ñoo dëkk nekk ci euh, penc dëkk bi te daan jàpp ci bis ci kër gu nekk ñu fay taxaw sëriñ bi nee na bàyyut kenn euh, liggéey bi nag comme waxtu wu nekk saa su nekk nañ ko daan def rek noonu lañ ko defee ni ko sëriñ wax léegi ginnaaw ba ñu jiitee la jàngal alquranul karim ku ne xam ne nag liggéey bi am na ay liggéey yu ko jiitu mooy ay waxtaan ci diine eh, ci njiitul ñi nga xamante bi mooy waa solomul wusul muy daari bi nga xamante bi moo lëkkale mbooleem njabootu sëriñ bu Buso gépp góor ak jigéen ak ndaw ñuy taxawal xam-xam di dundal xam-xam di seetaan xam-xam bu baax a baax am na conférence bu am solo boo xamante bi ñu ngi koy waajal di ko def ngir gàttandoo ko magal gi ngir gën koo yaatale bis ba kenn ku ne xam lan moo kan moo nekkoon dunduk Sëriñ Mbàkke Bousso waaye am yoo xam ñu ngi koy waajal ci kanam daare boobu itam mu ngi koy moom itam mi ngi soñaale mbooleem njaboot gi ak mbokk yëpp ngir ñu ci bis boobu ci bis waxee léegi sàngu jàng jàng alxuraan baax a baax ak xasida ak mbooleem listixfaar ak mbooleem liggéey boo xam ne euh, dañ ko nangu sëriñ bi ne mi ngi koy sàkku ci ñëpp euh, incha allah taala nii daal lañ koy fas yéene dundale ñoo ngi yëkkati suñuy kàddu ci ndigalu sëriñ Omar mi nga xam ne nii mooy xalifa sëriñ bu Buso di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala guddal aw fanam ba lépp lu mu naanal suñu bu Buso mu def ko di yëkkati suñuy ziar ak suñuy nuyoo muy daayira wu euh, sulam wusul ci euh, banqaas bi nga xam ne ñooy saytu xam-xam ci nekk fii ci Gédé ca mbooleem suñ sëñ bu Buso yëpp aju ci ci ndigalu sëñ Omar am na liggéey bu mag boo xam ne ña ngi ko doon liggéey yàlla dogal liggéey boobu mu ngi sotti bis ni ki tey jii lañ doog a jot ci liggéey bi muy téere bu ñuy tuddee sulam euh, saadatu tulaab fii siirati cheikhil xadim téere boobu ab liggéey la boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko bindoon ci taarixu sëriñ euh, sëñ Mbàkke Buso moo ko bindoon ci taarixu sëriñ Tuubaa muy téere bu am solo boo xam ne nii daayira bi seen liggéey bi njëkk a tàmbali mooy jilaat téere boobu leeral ko taxqiq ko leeral lépp lu ci mat a leeral yàlla dogal daaw ba ren ñu ciy liggéey yàlla dogal mu ngi doog a sotti tey jii la téere bi doog a yegsi ci ndigalu sëñ Omar incha allahu jàpp nañ le 31 3 heures bu jotee le 31 ci la ñuy tàmbalee programme màggal gi mooy le 31 bu trois heures jotee incha allah fas yéene nañ woo képp koo xam ne borom xam-xam nga bu nekk ci dëkk bi ñu ñëw dajee fii ci salle bii ñu toog nii fas yéene ard téere bi gaaral ko wax li ci nekk. kañ tànn mu nga xam ne moom lañ jël comme mu ki mooy gaaral téere bi mooy euh, docteur Serigne Sam Bousso Abdourahmane bu noppee Serigne Mamour Bousso Hamdi dana ci def ay taalixaat ñu ciy woo mbooleem képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi ca yëngatu ci xam-xam ñu ngi la ciy woo loolu mooy programme le 31 ca ëllëg si di la la la la première daayira Sulam Wusul danañ organiser benn conférence boo xam ne nii bu 9 jotee ci ci guddi ci lañ koy def loolu ki koy def mooy sëriñ As Bousso imam bu Azhar ci Kees moom moo ñuy defal conférence boobu incha allah moom ñu ngi ci woo ñëpp loolu mooy activité yi nga xam ne ni daayira Sula Mousoul far bi nga xam ne ñoo yore xam-xam ci dëkk bi programme boobu lañ programmé muy le 31 art de téere bi la première conférence bi nga xam ne sëriñ ñoo koy def ñu ngi ciy woo ñëpp wuñ kenn. dégg ngeen programme bi ca boobu nag bu di h jotee ca la ñuy def cérémonie officielle bi. bokk yi génn kii toog nag di xalifa sëñ Mbàkke Bousso mi ngi ko yëgal président la république président Macky Sall di kenn ci moom ak ki nga xam ni mooy premier ministre Amadou Ba ak ministre de l'intérieur Antoine Diome nga xam ne nag moom digganteem ak sëñ Omar mii toog amul nattab la ñëpp xam na ko bara maa jox kàddu gi sëñ Omar nag mu sànni nuy baat nu ñaanal ko mu yàgg téwér ku yokkul da ngaa ku xool kër sëñ bu sa gii xool jàngukaay bii dugg ci biir dëkk bi da nga xam ni sëñ Omar mii la maamam ji yéene woon ak defar gëne tëlul dara utul oto utul tabax xam nga lan la bëgg bëggal sëñ Mbàkke Buso ndam te am na ko kon bi sëñ bu sa bii la trois ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu. da nga xamal ne li tax aw ma gën a bëgg gudul moom li ko sëñ Tuubaa defal defalu ko kenn. ba mu bëggee wuji boromam moom la ko batale kàggu gi suñu daan def moom la ko batale université bi moom la ko batale dem gi màkk moom la ko batale gannaaw bu suñ bi la ba mu njaboot gi ba njaboot gi euh, àndaat la suñ mbàkk feeñal loolu yi ne suñ batale woon na ko yëpp defal nañ ko ba ci sëñ Muntaxa mi ci mujj mu def université loolu sëñ sëñ Tuubaa ci moo ko waxante suñ mbàkk te boobu kenn yëgul ñoom ñaar rek ak yàlla kon nag aajo yi sotti na léppay sotti waaye daal nañu xam ni bisub sëñ Mbàkke Buso kuy nganale Makka ki ñu war a nganale mooy ki ki demaloon sëñ Bamba Makka kooku rek la ñu war a ganale ngan gaangoog bis bi la bu kenn manqué ne ñëpp wu si sëñ Omar sëriñ Mbàkke Buso baax màgg nga lool fa sa borom bur yàlla sant na la moom